soo le secteur au Sénégal Finalement, je parle avec des pincettes je suis un profane voilà n'hésite pas à me corriger ah, hmm. dans nos trois secteurs le secteur primaire tay ci Sénégal moy y a ëpp lu muy employé ci ay sénégalais actifs jusqu'à près de 80 par contre le mu de dans le produit intérieur brut au Sénégal c'est on va dire dans les 60 60 donc dans le lu mu donc 60 des sénégalais actifs en âge de travail si sur si dans le secteur primaire agriculture pêche etc., et donc, tu as peu de Sénégalais qui sont dans le secteur tertiaire et qui contribuent à près de 60% dans notre produit intérieur brut. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que près de 60% des Sénégalais en âge de travail qui sont dans le secteur primaire puissent apporter autant dans notre produit intérieur brut ah, c'est le doigt posé sur un problème important, c'est celui de la négligence de l'agriculture, du secteur agricole. Or, on en fait, nous, dans notre programme, la priorité des priorités. Pourquoi Parce qu'il est inadmissible que dans un pays comme le nôtre, bo xamné bi romb nañu indépendant lu ëpp juróom benn fukki at hmm. xiif di fi am te xiif am na Sénégal SILS am na rapport bu mu génnee yàggut jege nañu ben million un million de personnes yo xamné xif nañu te soxla nañu ndimbal. ce mhm. que fu mu baña fay kon priorité des priorités bala ñuy wax industrie moy fay dekil mbey magal mbey waaw indi aussi. ba nit yi bañ a loolu loolu loolu loolu loolu war a indi ñaar mhm. benn bi ñàkk bi am ci dëkk kaw yi wàññeeku mhm. ñaareel bi bu fekkee ne àll naat na dugub du jarati ñaari téeméer ci ci ci ndakaaru ah mais quand même mille francs le kilo te daaw c'était trois cents francs le kilo

nous avons l'une des villes les plus chères du monde. C'est très cher. C'est très cher. Et njëgu dund bi ci la. Mm-hmm. kon fay de mbéy moo mën a wàññi loolu. Mm-hmm. te am na yoon yoo xam ndax priorité 2012 Hein? avril 2012 xeex xiif fay daal mbéy jël ci dox ci ay jéego yu am maanaa waaye am na lu bëri loo xam ne xam naa dinañ ci dellu si au moment vos mm-hmm. am lu bëri loo xam ne da doñ ko daal di di di teg bay monsieur bay oui. il faut qu'on continue parce que oui, oui, c'est vrai. rendez-vous après <laughs> c'est tellement intéressant <laughs> eh, non c'est ce que je vous avais dit gars ils ne se rendent pas compte ñu ne ma def une heure may les non, nañ def entre une heure et une heure et demie te même les invités qui vont venir ils vont vouloir faire plus mais il faut